commissaire euh, na Cheikh Sadibou Keita ñu ngi lay nuyu. maa ngi am mbégte dalal la ci waxtaan wi euh, tey euh, war a waxtaanee surtout wàllum karange gis nañu ne fan yi moom dafa mel ni ñàkkum karange gi dafa gën a fës faat gi sàcc gi ngànnaay yi itam ñu ciy jëfandikoo yenn saay muy xaw a yéem askan wi lool yow en tant que takk der bu retraité ban jàngat nga def ci situation bi tey. li ma ci gis lu simple la tey mënoon noonu wax ni wuy média yi dafa gën a bari moo tax ñuy gën a yëg mais li fi xew dafay xew di xew ay weer wala ay at ngi nii même pression bi mu nekk tous les jours la même chose dañuy waxee moom la ñuy waxtaane mooy jaaxal nit ñi presque melul ni lu dellu gannaaw wala su gëmmee tuuti day gëm rek pour jógaat encore la jëlaat nit ñi mhm. donc loolu réalité la bi nga xam ni tey mooy done bi il faut que ñu d'accord ni insécurité bi tey ëlëm ñu tiim nañu tiimaay bi nga xam ni il faut que autorités yi jële ko noonu ñu arrêté di def sécurité comme ni ko doon defee toujours ñu jàpp ci ni lii mooy done bi ñu jéem a seet ci suñu biir suñu capacité suñu mën-mën suñu société nan la mel ay ay ay réponses yi nga xam ni dina mën a dem ci loolu sinon dañuy nangu rek mujj d'accord ni lii kat ëpp nañu doole mu mënuñu ci dara et population bi li muy sentir mooy li muy sentir mooy li nga xam ni moom lay yëg tous les jours di nga gis tous les jours. Mm-hmm. loolu mooy tax mu ni am na sécurité wala amul sécurité. et lii fi nekk effectivement nii nu ko yëgee ni nga koy yëgee ni nga presse bi joxe noonu la ko population bi dundee bis bu nekk ne amul sécurité ci région wu Dakar fii nga xam ni en général fii la lépp daan amee ñu koy yëg. Mm. ak yeneen yi comme Ziguinchor comme comme comme euh, Kaolack comme euh, Kolda comme ailleurs comme ailleurs. Mm. comportement yi am toujours dafay nekk comportement yi nga xam ni effectivement dafay euh, day day day ëlëm nit ñi. affaire bi am tey jii par exemple tey ñu ngi wax géejawaay benn xale bi nga xam ne dañ koo jam dañ koo rey ndax portable mm-hmm. ci ngoon si jeexalu ñu daal di tourné fële daal ni am na benn xale bu jigéen bu ñu rey ci booru géej mm-hmm. rey rey rey yooyu nga xam ne dañ koy dégg tout le temps tout le temps quel soit presse bi lu mu ci joué. Mhm. dafay situation bi nga xam ni bii la am pour gérer ko. Mhm. il faut que service de sécurité yi yee seen bopp ci loolu taxaw taxawaay beneen bi nga xam ne day indi ay tontu bi ñii. Mhm. rey yooyu tamit cambriolage yeeg sàcc yi euh, dooleeku ci loolu tax xëy na ku mel ni Serigne Mbacké Ndiaye ne nañu essayer euh, ak militaires yi ngir xëy na kaaraange dellu si. loolu loolu loolu dama dama koy dama koy rafetlu. bien que nag. day des ba léegi su fekkee spécialiste mooy wax mhm. dañuy d'accord ni solution wu gisinu sénégalais mhm. bu buggu indi cotisation am ci loolu mhm. moo tax muy xalaat foofu en tant que politicien ni nan def lii pexe mën na génn foofu mais dafay wane yoon wi rek ni am na leneen lu nu war a jukki feneen ak feneen ak feneen ak feneen pour mën a xalaat ñun ci sunu peuple sunu askan lan la ñu mën a def ba lii ñu doon def pour sécurité bu fekkee doyul ñu jukkiwaat feneen indiwaat yeneen façon yi nga xam ni dafay indi xarala gu mat day indi ay pexe yu gën a yu bees yi nga xam ne day permettre nit ñi ñu mën a xeex ak insécurité bi. Mhm. ndax commissaire lii bu wéyee euh, takk der yi maanaam police ak gendarmerie situation bi du leen dépassé. waaw situation bi ñoom ñoo war a bañ mu dépassé leen parce que ni ñu koy dundee ñun ñëpp ñoonu lañ koy dundee lu tax mu war leen dépassé c'est parce que problème bi nga xam ne yaa ko war a réglé. su fekkee pression bi day continuer di continuer day continuer soo fi nekkee ak moom te kenn waxu la dara yi tamit yow war nga d'accord ni sa responsable bi foog nga indi ci ay pexe yu bees dafa jot tey que ñoom ñu taxaw daal ni situation bi gat mu ngi nekk fii di gën a metti tous les jours teew tous les jours bis bu nekk ñu koy gis di ci am ay euh, ay ay ay ay ay euh, métti métti yu bees que ce soit fii wala Touba wala feneen donc ñoom ñoo war bañ mu dépasser leen pour mu bañ leen dépasser nag il faut que ñu indi taxawaay yu bees sans nag ñu nii dara newu fi non dara nekk na fi. Hmm. parce que xam-xam bi ak mën-mën bi ak capacité bi mu ngi fi dañ leen former yi tamit jumtukaay yi am na fi parce que booy xool depuis quelques années xar kanamu gendarmerie dafa changer xar kanamu xaram police dafa changé. Hmm. mais est-ce que euh, délinquance bi. loolu doy na pour mu daw il faut que changement boobu quelle que soit situation bi. mu impacté ci comportement yi nga xam ni moom la ñuy am pour xeex ak insécurité bi il faut que ñu xam ni problème la ñuy gérer problème boobu da ngay indi ay réponse ci ni nga toll ci fi nga toll ak li nga am comme moyen mm-hmm. parce que mënuloo xaar ba sa ay moyen mat ci benn sens ou beneen sens. Mm. pour que nga ni léegi pare naa pour xeex moom su la tànkee tey nga war a ci tànk tëj bi nga war a réagir ak loo mënti am. Mm-hmm. foofu sax laa doon bëgg a ñëw commissaire ndax gis nañu ne ay réaction la ñuy def maanaam mbir xew ba pare ñu doog a jug te booba day fekk béy wéy na mbuus ndax waruñu woon gën a xëy na euh, fexe di gàttandu yëf yi balay dara xew euh, takk der yi jug. waaw xam nga toujours kii dem porté ji plainte moom toujours day xaar ba dara xew. Mhm. mu yëkk ci yaramam mu dem porté ji plainte. mais mission wu police du loolu. du rek askan wi tëb na nu metti na ci ñoom am na ay rey rey rey rey mu soogu ci dafa war a ci loolu. mais mission mu ngi commencé fu dara nekkul fu dara amul mu war taxaw daal ni fii lii su amee dina doon métit ci askan wi mu gàttandu ko xalaat lan moo mën a am mu gàttandu ko. def ay pexe pour que dara du am bu dara naree am mu xam li nara am mu fexe ba loolu du am. bu amee ba pare nag mu topp si comme ni situation bi. am na tàggat bu leen may ñu mun a def loolu. na. ma ne am nañu tàggat bu leen may ñu a def loolu ñoom takk der yi tey. fii am na lu tàggat bu leen ko may. Hmm. xam nga ki nga xam ni daf koy def. Hmm. da nga naan tey nañu yeesal taxawaay ak yeesal ay ay feem. loolu la. Hmm. xalaataat nu ñuy def ba aar bi ñuy aar. te avant mu indi woon ñu bañ a wax insécurité ñu d'accord ni am na lu ci war a yokk naam loolu mu ngi fi am na lu war a yokk tey war nañu gën a jege askan wi tey war nañu gën a dugg ci biir réew mi tey war nañu mën a gën a teew ci biir espace bi wax ji li ñuy wax ay proximité ci ci espace bi gën a jege population yi gën a xam luy xew ci seen biir loolu yëpp dafa war a yokku yokku boobu nag mooy tax du eh, délinquance bi du leen rawee lu bari. Mhm. commissaire seetlu gi tam mooy lu bari ci euh, délinquance boobu Dakar la ñu ko doon nemmeeku ci capital bi waaye léegi dafa mel ne yëf yi dafa tuxu biir réew mi daanaka yëf yi fa la gën a tare bu ñu sukkandikoo ci événement yi mujjee am loolu ci sa xalaat lan moo ko sabab. taxawul taxawul dafa wala délinquant yi seen bopp taxawuñu. Mhm. li xewoon ñi newoon ci biir réew mi ñoo fa nekk. c'est dama jamono rek mooy dox. Mhm. di dox ba. nga gis ci biir réew mi environnement bi changé c'est-à-dire nit ñi liñ daan gis liñ daan soxla liñ daan yëg li teew ci seen kanam ak seen bët ñu koy bugg te jotuñu ko wala ñu ciy am soxla te léegi ñu xamoon que léegi mu jege leen loolu mooy conditionner comportement de délinquant yi internet bi nekk fii nga xam ni lii ngay lii xew Dakar ak lii xew feneen benn la environnement bi changé ngay gis ay agence su banque ngay gis ay ay dépôt ay ay ay ay commerce yu mag ay ay ay ay signaux yi nga xam ne day wane ni ay nit ñii kat ñii nekk ci àll bi tey ñoom ak waa Ndakaaru ñoo bokk ay alal kon délinquant yi dañuy changer comportement loolu rek moo fi xew hmm. mais du li jógee nag li xew woon capital bi moom moo déplacé wu effectivement am na ay faits yu grave yu fi jot a am mais nañu considérer que simplement problème bi noonu la taxawee tey amoon na ay forme de délinquance violente dans le temps ci biir këfin bi mais daawul ciblé ci emploi yooyu daawul feeñe nii neneen la délinquant yi doon taxawee mhm. tey bi ñu taxawee nii dañuy comprendre rek ñu problématique bi moo changé comportement comportement bi moo changé mais pas que délinquance bi dafa déplacé wu. Mhm. suñu xalaatee noonu rek dañuy déplacé ay solution alors que solution du loolu quoi. du loolu euh, ñàkk gi ak ñàkkum xëy gi ci ndaw yeeg euh, yu demee noonu ndax mën naa bokk ci liy sabab phénomène bu ni mel. loolu yëpp dafa bokk ci euh, li nga xam ni mooy indi délinquance mooy xat-xat yi ci biir quartier bi mooy euh, ndóol gi mooy euh, ñàkkum xëy bi comme comme tu le dis mooy liggéey yi nga xam ni jàppandiwul ci lu am solo loolu yëpp day favoriser euh, nu mu tuddee encore délinquance mooy drogue bi nga xam ni day dugg ci réew mi mm-hmm. communauté yi mooy famille yi nga xam ni tey waajur yi ñu ngi topp di wut di wut di wut ba amatuñu prise ci seen ay doom. Mm-hmm. ñu naan euh, dañu démissionné wala démissionné wuñ ko beneen débat la. Mm-hmm. mais loolu yëpp dafay favoriser délinquance effectivement ça ne veut pas dire que su ñu waxee loolu dañu war a bàyyi fii action wu alkaati yi dem seeti foofu ay solution mm-hmm. yooyu dafa am ñu nekk foofu. mais du changer dara ci donu. ak noo ko mënti expliquer mhm. responsabilité police mu ngi ci nii lii war a xew te xewut mhm. nan la war a xewee te xewut ma dogale ko su naree xew lan la su xewee ba pare ma topp ji gannaaw di wër ñi ko def mhm. loolu mooy ci lañuy loolu la tënk euh, responsabilité wu police ci li nga xam ne moom mooy tax euh, sécurité bi dellu ci biir ci biir population yi du tere nag ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo am yeneen métier yooyu tout temps ngeen leen di interpeller ci li nga xam ni mooy nan la ñuy def ba ndóol am fi nan la ñuy def ba liggéey am nan la ñuy def ba lii am nan lay def ba dëkkuwaay yi mbedd yi am courant am lii am lële. est-ce que tu comprends loolu yëpp suñ ko boolee dinañu mën a am ay solution mais loolu day dimbale alkaati yi rek mais du leen changer si du changer seen responsabilité sinon su fekkee dañ ko teg foofu rek mhm. ça veut dire que loolu mooy loolu mooy problème bi problème bi du action policière alors que ku nekk da sa métier ku nekk da nga am sa métier askan wi tey lan moo war a nekk seen rôle ci euh, ñàkkum kaaraange gi ak taxawaay wi euh, euh, peut-être ngir dimbale takk der yi dimbale seen bopp aussi askan gi xam nga situation bu amee rek ni ma waxee ci alkaat yi noonu laay waxee ci askan wi mm. askan bi dañu war a jekkas ndikuwaat seetaat seen taxawaay ànd ak alkaat yi ànd ak gendarme yi xam ni seen biir la mbir yiy amee li nga xam ne sa biir lay am te mu ngi lay gaañ ñu dénkoon ko ay nit yi nga xam ne dañ doon agir ci sa biir ñu mën ko téye à moment donné mu dem ba loolu di mel ni luy déborder yow da xool jot na nag léegi nga taxaw taxawaay bi nga xam ni danga nga leen di yombalal seen liggéey ci li nga xam ne mën nañ ko xaar ci yow da ngay ànd ak ñoom ci liggéey bi ci li nga xam ni yow war nga ko mën a apporter ba balaa dara di xew ñu mën a jóg mm-hmm. ànd ak yow bu dara xewee nga mën leen jàppale ñu xam ban yoon la ñuy taxaw pour regle loolu mm-hmm. askan wi dafa war a bokk dafa war a bokk ci liy indi ay solution ci insécurité bi mu nekk dafa war di xool di seet yombalal alkaati yi nangu ni alkaati yi ñoom leen fi nekkal gendarme yi ñoom leen fi nekkal ñu def ko ci seen biir comportement changer ay tradition suñ ko defee dina mën a ànd ak alkaati yi seen sécurité dina gën mën a yomb. commissaire fi ñuy jeexalee mooy wàllum drogue bi jiite woon nga fi occultisme yi xeex wàll woowu tey drogue bi aussi bari lool ba jaaxal ñu bari ci askan bi rawatina ak sax takk der yi nga xam ne saa su ne ñu teg loxo ay junni junni tonnes loolu lan moo ko waral ci sa xalaat. loolu mën na nekk. na nekk te waroon nañ ko xaar mm. ci bu yàgg ba léegi di fi yenn drogue yu duggee dafa delluwul gannaaw te Sénégal ci position fii dafa bari ay drogue yu jóge bitim réew di fi dugg mm. du rek drogue yu weex yi nga xam ne moom la wax drogue dure muy cocaïne yenn drogue yi mm. dafa di même ñax mii nga xam ni dañ koy tux yàgg na yàgg chanvre indien yàgg na yàgg du fi fiy rek mu jógee Casamance ñu koy tudde ñaa koy moo fiy dugg donc trafic bi daf fi mës a nekk. Hmm. su demee nag ba ñi nga xam ni dañuy wut alal ci ci drogue daal di xool ni fii kat am na nooyaay bu fi nekk bi nga xam ne mën nañ fi installer seen ay réseau dañuy jël taxawuñu nag léegi. Hmm. taxawuñu naxasal suñu système yëpp léegi taxaw fii pour que li doon am feneen te xëy na foofu mu gën a fa jafe ñu ko ne di nga am fii wala ñu gën a am fii lu ëpp loolu. parce que ñoom seen soxla yëpp mooy teg ko fii ñu consommer ko fii. ñu jaarale ko fii yóbbu ko feneen wala ñu jël ko feneen indu ko fii loolu mooy seen soxla ba noppi nag ay nit ñu bëree bari bari bari jàpp si plus ñuy ñu ciy jàpp mm. plus liggéey bi gën a yomb ci ñoom plus ñuy am ñu ciy jàpp plus drogue bi di gën a bari plus ñuy am lu ñuy jàpp plus ñu koy mën a yóbbu feneen ak feneen ak feneen di defar xaalis mm. loolu ñun moonu dal il faut que ñu réagir ci loolu parce que loolu war nañ ko xaar surtout nag ci fii nga xam ni mooy Afrique de l'Ouest nga xam ni bi àddina dee àddina ba léegi xëy na doon soog a jël sam nu nii mais fépp foo jëm ci àddina bi boo jëmee Amérique boo jaaree Afrique de l'Ouest da ngay dem. Hmm. boo jëmee Europe boo jaaree Afrique de l'Ouest da ngay dem. donc dafay yomb mu nekk vocation. Hmm? ma ne sélébé yoon la. waaw sélébé yoon la bi nga xam ni dafay yomb lu bari ku buggu def lu baax mën nga ko jaarale ku bugg def lu bon nga mën nga fa la et tamit dafay yoon bi nga xam ni Dakar nekk yoon bi nga xam ni am na port bu am bagage yu bëri def fiy dugg. Mm. dégg soo duggee soo xasee ba dugg Dakar fu la neex ci Afrique mën nga fa dem. Mm. parce que yoon wi dafa tàlli soo jëlee corridor Bamako bi da ngay dem ba saraxal ba dem ba Ghana soo demee Ghana da ngay dem ba Togo da ngay dem feneen da ngay dem feneen da ngay dugg ci Afrique yëpp wër ko. Mm-hmm. te ci benn bunt bi nga jaar. Mm-hmm. loolu ñoom dañuy liggéey seen liggéey la dañuy xam lan moo leen arrangé leen arrangé nag dañuy xeex pour am ko dinañu topp pour nasaxal suñu système sécurité. Mhm. pour dugal ñu bari ci seen biir trafic bi. tant que ñun dabaatuñ leen du ñu dellu gannaaw wutiwaat feneen en attendant. mais pour l' mhm. véritablement effectivement. fii tous les jours ndekki ni drogue bi dafa gën a bari. Mhm. ça veut dire que ñoom ñu ngi fii liggéey lu baree bari bari bari ñun li nu mën a jàpp rek la ñuy jàpp. tant ñoom ñun jàppuñu li nga xam ni moom moo leen di sonal. dinañ continuer nii. tant ñu ngi yem ci jàpp li jàpp. mu mel ni nag feet la def nañ lu rëy rëy effectivement def nañ li nu mën a def hmm. mais tant que ñu ngi jàpp lu dul li nu mën a jàpp hmm. ñoom dañuy kon ne def seen trafic parce que li nu mën a jàpp lañu jàpp wante li rëcc rëcc la kon mën nañoo jàpp ne euh, li romb xëy na moo ëpp li ñuy teg loxo trafic drogue noonu la kii yëkkati euh, ay saaku du yëkkati benn saaku hmm. day yëkkati ay téeméeri téeméeri saaku xalaat comme yow parce que stratégie la ni téeméer yi kat xëy na suñ ci jàppee juróom-ñeent fukk yi dina rëcc. dina rëcc ainsi de suite ainsi de suite. ñoom noonu la ñuy liggéeyee ci am xam-xam am ci mën-mën. am ci ay daanaka du leen wàññi dara. li ngay jàpp du leen su leen doon wàññi dara rek arrêté doon. bàyyi nañ ko. Hmm. waaw bàyyi nañ ko. kon fii ak ñu ngi ñëw mooy ñu ngi ciy am dara. fii ak mu ngi ñëw mooy seen affaire mu ngi dox comme ñoom ni ñu ko xalaatee. Hmm. comme ñoom ni ñu ko planwee. fii ak mu ngi dox. boo xoolee yenn yoon yi. Hmm. ñu koy bàyyi par exemple du ma tudd yenn réew yi. mais yenn réew Europe yi nga xam ne dañ naan jógee Amérique du Sud rek daal di cëppeelu foofu. Mhm. tant que mu ngi doon neex muy yomb ci ñoom mu nooy. Mhm. foofu la ñu daan cëpp mu nekk direct. Mhm. mais bu demee ba li ñuy perte commencé ëpp dañuy changé la du jëm. mais dañuy changé yoon. si yeneen pays africain yi mën naa wax sax ni lu mel ni Afrique du Sud wala Ghana. am na li nga xam ne fële jëm. mais fi ñu ko doon jaaree du nga fa jaaree. donc ñun dafa mel ni ñun ñoo aye ñun ñoo aye parce que suñu ay frontière dëggul mhm. ñun ñoo aye parce que am nañu ay espace yi nga xam ne ñoom mën nañ ko occuper mhm. te kenn du leen fa fekk surtout depuis nag bi terrorisme taxawee tiim nu fii mhm. nga xam ni am na fi nga xam ni suñu fa bëggoon dëgëral sax duñ fa mën dëgëral parce que yeneen problème sécurité dañ fay régler yu dul problème mu bi à ce moment ñoom dañu mën a utiliser espace yooyu pour def leen neex. exploité ko jërëjëf commissaire